bëggante kon leenu dem bëgganteeg i bakkan ba tey ñépp dem bakkan yeenu tee dem de kon leenu dem bëgganteeg i bakkan ba tey ñépp dem ku jóg jëm ci aw yiw bakkan dal di jël mu far jekki saytaane def kob laram nanuy def nanuy def nanuy def baraw bakkan mii ci lee am ngërëm ndagam kenn amul ndam ku dul waaju raw bakkan raw gu kooku moo làq ndam bariw nit akub xaalis ak taaxi kaw te moo moo bakkan lii du faj lëf ndaxam ku nii lii alal ak ku niiwul alal asal seeni nee la xal ku xam sax du def ay dërëm muy alal la muy def alal moo di sellu jëfam ku xam it du fab nit di def wéttalam boroomam balay jàpp def wéttalam sëriñ baa ngi wootee kawaaru nitam akay digle ak tuubaku jëm kanam jubal nay mbiram not na ay noonamit mi ngi di sàkkoo jubal gaa yi gëm defar nam ngërëm pakk nekkul ngërëm ku aw am ngërëm doo tërëf doo gëlëm ku toppi waxam doo torax doo suruf ku xam jox ko say mbir te toppi waxam defar nag saxaaram ba dootul ayib ku war dal raw ak kemam jot magam yi muy digle koo xam ni kii dang ko def te sellal ka doo ñàkk ndam ak xoram li muy digle koo xam ni kii danga ko def te sellal ko doo ñàkk ndam ak xoram ku jóg dugg gaalu ndigal gii di wéy te génnul duwoo loolu àggey ngërëm te tey laa fasoo dugg gaalu ndigal di nag ba jot bépp teerum ngërëm te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem